suñuy leen bu baax a baax mbokki yi ci ànd bee kóolute gi ci suñu kër FM benn waxtu jot ba toftal fanweeru simili dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaaru digg bëccëg yi. xibaar yi ci suñuy kër FM. la ca gën a fës te ñu fas yéene ko waxtaanee bokk na ci lu soxal nawet bi ak nga xam ne jafe-jafe yi askan yi di jànkuwanteel saa yu nawet bi ñëwee loolee nag tax baskan nga yeewoo ca diwaanu Kër Massar daal di yëkkati seen addu seen kàddu di araftu li nga xam ne ñoom ñooy nguur gi ngir rek ñu jàppale leen ci jafe-jafe yi nga xam ne dañu koy dund da ngeen teelu leeral yi ci biir xibaar yi dinañu waxtaanee itam lu soxal njàng meeg njàngale yi nga ndongo yu bari dañu ko wan gannaaw loolee nag gannaaw ab jàngat goo xam ne def nañ ko ñu gis ne daal dina wàññeeku bu baax a baax ci ndongo yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci yooyu les séries tax rek bi nga xam ne inspection d'académie bu Kaolack daal di jël ay dogal ngir rek jàppale ndongo yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy duppee ay talent scientifique xibaar yi dinañ ko jeexale ak ñaari ponk xibaaru bitim réew yi ak tàggat yaram ñoo koy këmmal kon boo koy ponk yaa ngoog ki suñu gannaaw bu ñu leen nuyoowaatee beneen yoonu kaddu gi di bàyyeek fii ci cœur de ville bu Kaolack comme nu ñu leen ko junjee woon ca ndorteel ga nag la ñu koy wéyande ab collectif goo xam ne nag ñu nga nekk ca diwaanu Sicap Kër Massar ñoom ñee nag gannaaw ñom ñoo yëkkati seen i kaddu di dànkaafu ngur gi ngir rek ñu jàppale leen ci nawet gi nga xamante ne mu ngi jub si ak jafe-jafe ñu jànkuwanteel loolee rek ngir rek ñu mun a jóg temb ngir xeex mbir mbënn mi ñu teewlu Samba si ci micro suñu ko damay lancer alerte ci ministre de l' intérieur ci gouverneur de la région de Dakar ak président de la république ak euh, le ministre chargé des collectivités locales ak suñu maire Sangalkam particulièrement sous préfet bu Sangalkam pour jooytu pour avertir leen pour lancer alerte ci inondation yi di ñëw parce que euh, comme euh, daaw dañ fi am inondation boo xam ne musu fi am sans précédent la andi woon inondation bi mooy ndox la ñu jëlee bu jëkkoon ay kunun jógee fu nekk ci seen plan Orsec bi ne ko andi ko fii ci Sicap bañ ko andee fii ci Sicap euh, Sangalkam ñu lor ñu lor population bi def euh, vraiment mu andil ñu impact boo xam ne impact bu metti la moom la ñuy bëgg pour euh, lancer alerte bi pour demander population bi ak état Sénégal nañ ñu dimbale ndox mi bu mu fi ñëwaat ndox mi nga xam ne dañ ñu ko fi andil lu mu yàq moo yàq na kër yi gis nga kër yi yëpp dafa yàq kër yi am na kër yoo xam ne seen bâtiment yi ci seen bopp dañu affaissé wu dafa daanu dafa daanu carrément parce que fondation yi ndox mi ñëwee dafay gas ci mu gasee ci suuf fondation yëpp daanu mooy benn ñaareel encore mu dagg suñu yoon yi yoon yëpp la ñu dagg amatuñu fu ñu jaar suñu population yi ñëpp oto yi fii zone de chantier la parce que y a trois mille cinq cent parcelles viabilisées ak cent quatre vingt onze villas mais ñun ñëpp après dañoo impacté amatuñu woon fu ñu jaar ba gis ngeen koy route nationale bi bii di jaar ci Sangalkam même route bi dafa daggoon daaw kenn amatu fi xale yi di tardé kenn mënatul dem fenn kenn mënatul liggéey vraiment ñu doon ñaan pour que ndox mi bu mu kii ça fait presque un an ba léegi amuñu ndox ba seen fiilu courant yi aussi ko na ak aussi feebar yi amuñu woon ay yoo yu andi na fi ay yoo am na xam ne yu bëri am na fi feebaru ndox loolu yëpp am na fi mais danger bi gën a rëy mooy ndox mi dafay fees ba sut ma daaw benn xale yàlla moo ñu si dimbale benn borom sareet moo ko seen ñu tëb daw jàpp ko dëndi ko pourquoi parce que dafa daanu mu lab ku lab ci ndox mi nag bu yàggee bu deewee ñu commencé di jóg balaa loolu di ci arrivé nañ ñu dimbale ngir yàlla ak yonante bi pour que ndox mi nga xam ne moom la ñu jëlee feneen bu mu ñëwaat fii suñu quartier bi vraiment bëggatuñ ko na état bi arrêté ndox mu ngi noonu dañuy desandi ca ci wàllu nawet bi ba tey ak délégation ONAS gi nga xam ne dem nañ te diwaanu Touba ñooñee nag ki nga xam ne moom mooy porte parole xalif ba di Serigne Bass Abdou Khadre moo leen mu daal di prox dollu ci mbir mi nu mel yëkkati ay kàddu di ñëwaat bu baax a baax ci conséquences yi nga xam ne nappe phréatique ba rek leen di jural maanaam inondation yi nga xam ne leen di jural ñoom waa diwaanu Touba ñu teewlu Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké ndox mi it yàlla def na ñañ ko dénk ña nga ca di ko saytu noppeeguñ nag waaye itil ba li ci ëpp àgg na ñoom nag li ñu waxoon bu noppee day jébbal si ko sëriñ bi diglu ko lu ci sëriñ bi santaan loolu nag moom kii na bari dem fa fa demee leeral ko ko fa sensé la woo sëriñ bay ci am laaj ko sëriñ bay leeral ko li ñu jotoon a jot ci rapport yi ne ko waaye xamaguñ dëgg dëgg nag loolu di ñu gën a xóot ñoom ci lañ fiivalaat ñu yor loolu ak yeneen équipe ñu ànd ko ñu ko war def seen gëstu ba gisaat ne yëf yi gën naa xóot nañ ko jàppoon ndax am na ci loo xam ak dex la bu traversé dëkk bi jàll duggul nag ci biir jumaa ji waaye bu da ci am loo xam ne dafa am calcaire ak ban ban boobu nag moo ba fatt ba ndox mi mënatu jàll moo tax nab def seen gëstu ci biir gëstu yi nag fa sansa la joxoon ndigal suñ béysaa suñ kanam ndax màggal gi xam ngeen inondation bi amoon ni métti woon mun nag kon dama bëggoon ñu boore projet assainissement bi ñu waroon defar jël nab bi dugalaale ko ci biir ndax buñ ko bëggee xaaraat mënta xaar nawetu Pikine ci biir nord bi nañ jéem fexe ba forage yi nga xam ne ñooy ñooy manque ndox bi mu jiitu ba manque ndox bi yóbbu ko ci réseau mu jàll bu ko defee ñoom parti boo xam ne xëy na mooy ñëwaat waaye lu njëkk ni ñaar fukki milliards ñett la yaakaar loolu bu jàllee nat bi moom dana réglé assainissement bi dana jël lu bari xam nga dëkk bi nag dafa rëy yoom téeméeri milliards sax ko ko defoon lu tax mu lijjanti mi ngi noonu ak euh, collectif bu yees nag la ñu daal di samp fale ca quartier bu nak loole euh, nag ngir bañ ba lànk ci ab bâtiment boo xam ne ñu ngi ko bëgg a amal ci seen boulevard de liberté ba boobee collectif nag daal di jano ak taskatu xabaar yi ngir rek ñu arrêté lu mu gën a gaawee boobule travaux nga xam ne ñu ngi koy amal ñu teewlu Pape Simaxa ndaje bi lu ko waral moom mooy euh, bâtiment bi ngeen seen ni te nga xam ne buñ ko tabax mu nekk moomeelu waa Kaolack nekk moomeelu waa Kasnack mu nekk loo xam ne tey boulevard de la liberté moom lañ ko tuddee nga xam ne ci jamonoy Diène Farba Sarr moom moo lancé woon travaux yi ba nga xam ne fii deux voies la waroon doon aire de jeu ba nga xam ne tey moo nekk terrain daal yi ak terrain penc yi nekk foofu yëpp dañ leen war a aménager def ay espace vert yi aussi ñu defal ci ay cadre defal ko ba rafet bàyyeel mais malheureusement à notre grande surprise ñu jël espace ne fii la ancien garage dem jox ko benn opérateur économique dem loo xam ne ñëpp koy ñaawul collectif Kaolack man dama dépassé Kasnack ak Boussaane mais Kaolack lii ñu tabax fii dafay nekk loo xam ne lu ngay ñaawlool te tamit ki nga xam ne moom lañ ko jox mu nekk opérateur ci élection locale mais dafa am ci liste bu mu duggoon te ñun bu soobee parce que suñu constitution moo ñu ko may suñu ko autorisé ñàkk ko autorisé ñun bu soobee yàlla la population Kaolack waa dinañ wàcc ci mbedd bi lu ñu war a def dinañ ko def te dinañ fi fi toog ci waa ji dégg naa dugub taal aussi daggal nañ ko fi woon ak ñeneen ak ñeneen il faut que ça cesse benn bande de voyous la boo xam ne tey lépp lu fi nekk rek ñoom ñoo koy accaparé maanaam suuf luubal lépp loo xam ne affaire Kaolack ñoom ci loolu la yëngu kon nag am na loo xam ne ñun la population Kaolack waa dootuñ ko nangu depuis nag ñëpp pare nañ pour wàcc ci terrain bi ñëpp pare maire yeeg paa yeeg ñëpp dinañ jóg même suñu maam yi sax dinañ génnee ak taxaw fii parce que suñu baay ak suñu maam yi suñu defoon lii kon ñoom duñ ci jot ñu taxaw ci mbir mi pour ñu régler ñu démolir ce parce que population bi bëgguñ ko xanaa sooy def dara te askan bi bëgguñu ko nekku sa moomeel nga war ka baax wéyandi xibaar yi gannaaw ba benn waxtu jotee ba toftal fanweeru simili ak juróom-ñaar ñu àddu nag wax ci ab ndaje xam ne élus locaux région bu Kaolack amaloon nañ ko doon na nag ab roxndol ci ki nga xam ne moom mooy maire bu Kër Maba nekkee ci département bu Nioro mu daal di fësal di xamle ne rek ab pétition moom daal di nañ ko yónnee ci nguuru Sénégal ngir ñu mu a nangu li nga xam ne moom mooy cœur de bu Kaolack ci ay loxo yi mu nekk ngir askan gi mën see jotee ñu teewlu Abdou Ndiaye ci micro suñu Kër ñuy demaat ci élection un mois lañ teg ci élection yooyu mu seeti président de la république moom ci goreem ci matam mu ne ku ànd man ak ku àndaloo man ñëpp sama njaboot lañ dinaa ko ma dimbali Kaolack fa laa il aime Kaolack mu ñëw président ñëwaat Kaolack toog ne damay recevoir région ñëpp ñëw toog département par département mu ne président sama poche bopp laa bëgg moom Serigne président chambre de commerce maire Kaolack président nangul ko ko defal ko audience su mu dem ànd ka ko neex basam yëguñu ñëwoon mu ne ñaar damaa soxla cœur de ville bii nga xam ne dugaloon naa këyit yi ñu galgal ma ba ma rocciwaat ko ñu defaatal ma ko parce que contrat bi jeex na vingt milliards amel naa leen ko musuma fay impôt yu d'accord maay maire loolu mën naa ko rectifier après waaye vingt milliards yi ma ameel nguur gi ak Kaolack nga épongel ma ko waaye it bëgg naa cœur de ville bi ñu def ko bàyyi wala ñu def ko titre foncier ci turu Serigne Mboup man li may wax c'est a weddi mën ngaa commune de Sibassor doon ko wax ak maire bi fi nekkoon mu lànk ma bëgg nga dimbali ma ci pour ma jot cinquante yooyu président ne beneen bi lan la mu ne ko ñaari député bëgg naa ci liste nationale nga may ma président ne ko ak ban mu ne ko ministre waaw su fekkee loolu yëpp da ko dajeel jox ko président fàtte nga ne président am na investissement bu mag bu mu def Kaolack plus de 17 milliards ñu di suul ci biir suuf si nga wan ko war ko wan population nga doon ut Kaolack jël ko pour mu nekk sa instrument pour que nga développer sa bopp développer sa njaboot stade municipal amu fi Mariama Sarr ko commencé woon arrêté na ko arrêté wul chantier bi nekkoon ci biir mairie mu ne xaalis ba ca des daf koy dugalaat ci poche parce que am na leen luñ ci bëgg a def marché bi ñu doon bale barki dem mais Macky Sall moo teg instrument bi tax bi ko doon bale marché bi wan waa Kaolack ne man maa ko def pétition dana génn ñu wéyandi addu wax ci leneen mbirum social ki nga xam ne nag moom mooy maire bu Latmingué di wuyoo ci turu docteur Macoumba Diouf moom mee nag daal dina yëkkati ay ndimbal daal di ko jagleel école coranique yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy imaam yi loolee nag lu toll ci juróom-ñeent juróom-ñeent tonnu euh, li xam ne moom mooy ceeb la yëkkati daal di ko tekk seeni yoxo ñu teewlu ko moom maire bu Latmingué di docteur Macoumba Diouf. sëriñu daara yi ku ne xam na ne ay taalibe lañu yore ay ndongo yu ñuy yar di leen toppatoo dimbale di leen taxaw ak ñaan mi nga xam dafa am lu war ci ñoom waaye askan wi daf leen yaakaar bëri bëgg dara ci ndimbal wala ci taaw ci imaamu dëkk ba nga xam ne dañoo ànd ak xeetu laago ci ñetti xeet yooyu la waaye weeru woo nga xam ne dina a ko gëmee noonu lañ ci saware yi ñoom ci yeneeni projet yoo nga xam ne xëy na wax dina gudd waaye daañu gën a jàppalante ak ñoom ba lii ndimbali du jógee rek ci lii geste la rek mu ngeen jox waaye ndimbali mooy jàppale leen ci li ñu jàppale seen bopp ci ni eh, ñu fa def a béy nawet waaye xam ne am nañ ko projet ak ñoom kon lii ndimbal la rek ci biir weeru koor yi ma profité waxtu ñu koy def dafa am lu mu tombé fii ci commune Latmingué ak ci Sénégal mooy ñi ñu ñuy soog a ma bëggoon ci profiter pour njukkee la sant gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo participer ci lool woote pour ma nekkaat maire bu Latmingué junjoon nañ leen ko ci ndorteel ga ñu àddu wax ci mbirum njàng beeg njàngale bi ak série scientifique bi nga xam ne ndongo yu bëri dañ ko wan gannaaw loolee nag gannaaw ab jàngat goo xam ne amal nañ ko diggante atum 2020 jàpp atum 2021 moom daal dina wàññeeku bu baax a baax loole nag tax ba inspection d'académie bu Kaolack daal di jël app dogal ngir rek gunge ndongo yi ñuy duppee ay talent scientifique ñu teewlu ko ci micro suñu kër FM. difficulté mooy que côté enseignement scientifique enseignement science mathématique ngeen xam ne bëgg na développé wu il faut nga miser si la ñu ne enseignement des sciences maanaam nga ay ay ay cadre scientifique ak mathématique parce que côté littéraire littérature histoire géo français bëri nañu ay cadre dañu ne léegi dañuy basculer même si yeneen ni am nañ solo dañuy commencé basculer comme pays ñu ne pays émergent comme BRIC yi ni ñu ko defee il faut ñun tamit ñu def euh, lu mun possible pour euh, améliorer enseignement math ak science ñu mën a am ay cadre ñu mën a am bu baax si domaine yu bëri ay cadre garantir suñu développement bi moo tax ñu ne à côté de concours Miss Math Miss Science boo xam ne direction enseignement moyen secondaire daf koy organiser chaque année ak olympiade mathématique ak euh, BSC yoo ne état daf leen créer fii Kaolack am nañu beneen beneen BSC ak li dina fi am dina boobu tamit day ëmb Kaolack alors loolu bu amee tamit ñun ñu ne ñun suñu biir dañuy euh, mettre en place beneen initiative bu bees moom la ñu ne projet pépinière de talent PPT boo xam ne au ñu toog di constater que bi mën a jóge si collège bi dem seconde S ñu constaté ko que du am mais ñun il faut ñu seet lan la ñu mën a def pour que élèves yooyu ñu préparer leen comme ça mu mun nekk loo xam ne ñun ñoo koy calculer ñun ñoo koy programmer que sangam élèves yu ñu jógee si collège sangam dinañu nekk cent personnes six cent yooyu bëgg nañu mu am au moins trente muy dem seconde S moo xam loo xam ne du ñu bett la ñu ne gestion pédagogique prévisionnelle programmée la ñu war a def bu ñu ko defee léegi dañuy def test à partir de seconde lycée ak cinquième collège bu ñu test tester élèves yooyu ba pare ñu seet ñan ñoo xam ne dañoo gën a xarañ ñoo ñoo am potentialité pour être mathématicien ou pour être scientifique ñooñu dañu leen jox encadrement particulier ak dañu choisir déjà ay professeur professeur encadreur si collège yu test ñu jël dañu jël ay collège pilote foofu léegi dañu leen di encadrer ak inspecteurs yu nekk IA inspecteur enseignement mooy secondaire IMC ak formateur CRP e dañu leen dañu encadrer professeur yooyu ñu mën a gën a xarañ pour accompagner élèves comme ça élèves yooyu ñu wéyandi xabaar yi gannaaw ba benn waxtu jotee ba toftal ñeent fukki simili ak ñeent municipalité bu euh, Kaolack nag daal dinañu présenté seen i bilan ñeel téeméeru fan yi nga xam ne seen maire bi daal dina ko def di Serigne Boub ñoom ñii nag ñu ngi dalalaat xelu askan gi bu baax a baax di xam le ne dinañu yokk leer leeraay fee ca diwaanu marché ba waaye itam yokk li nga xam ne moom mooy yi ngir rek ñu mun a xeex bu baax a baax li nga xam ne moom mooy wàllu mbënn mi fii ci diwaanu Kaolack ñu teewlu Mbaye Ngom ci micro suñu Kër Euh, li ci njëkk mooy ñun euh, xam nañ ni Kaolack jafe-jafe bu mu gën a am mooy assainissement te assainissement bi ren euh, ñu ngi ñaan yàlla dafa ñu sutura vraiment jéego yi ci jot a dox boole ko waa ONAS ak waa AGETIP gis nañ ni am na point yu bëri yoo xam ne dafa doon taa daaw sax amoon na tuuti taa taa ren dina amaat waaye yaakaar nañ dina wàññeeku bu baax a baax parce que li nga xam ne moo taxoon ba daaw ndox mi xawoon tak ci yenn mbedd yi mooy canalisation bi jugee xaaxul jëm baan daw si bi jaar par Medina Italie dafa am 20 mètres carrés boo xamante ni jotaguñ ko woon laal ren nag signé nañu accord ak waa AGEROUTE parce que ñoom ñooy gérer tali bi dinañ dagg tali bi fan yi def connexion bi de telle sorte que inondation même suy am doon ay inondation mag mag mais ay taataa yu ndaw ndaw mooy am beneen bi aussi ci éclairage soo gisee monsieur maire tamit euh, Serigne Mboup dégagé na budget bu am solo boo xam ne bëgg ñu defaraat éclairage yu Kaolack bi yëpp lu ci mel ni route nationale yi route nationale bi d'abord ak yeneen quatre route nationale yi fi am mooy tali Nioro Euh, mais aussi tali bi nga xamante ni moo jëm euh, Medina Mbab vraiment éclairé ko di dem soog dugg ci biir euh, koñ yi semaine bii nii démb xaw ma barki démb dégagé na aussi benn budget boo xam ne kon dem jëm ci côté aussi marché yëpp dañ koy éclairé à partir de semaine bi guddi gi nit ñi mën a def seen activité yi waaw budget bi yëpp te disponible soo ngeen xoolee budget mairie Kaolack bi ren c'est plus de quatre milliards quatre milliards yooyu am na ay fonds yoo xamante ni jot nañu ko defal virement ba pare am na loo fekk nañ ko fi je pense que mën nañ ci débarrer mais budget fii ba fin d' ne bi nekkagul en place mais monsieur le maire je pense que dina ko présenter euh, très bientôt ci fan yii ñëw euh, def na euh, ay gymnastique yoo xamante ni dina jëlee même budget bi 4 milliards yóbbu ko 10 milliards te vraiment ñun suñu budget bi dañ ko yóbbu sur les projets prioritaires en tout cas li ñu présenté fii tey yëpp jëm fii ak 6 mois loolu yëpp xaalis bi mu ngi en place. mi ngi noonu ñeent fukki simili ak juróom-benn moo bootu ci benn waxtu mu mel ni yegg si nañ ci ñaareelu xaaju xibaar yi bu nes kii see lay doon. ñaareelu xaaju xibaar yi nag dañ koy doxe ak xibaaru bitim réew yi ñu ci ànd ak Cheikh Tidiane soxo mbokki daleen ak jàmm xibaaru biti réew yi dañ koy doore ak réewum Burkina Faso ci décision bi nga xam ne CEDEAO daal na koy jël na du def benn changement ci calendrier ultimatum bi nga xam ne jëloon na ko ci transition bi waral sax njiitu Burkina bi duñu présenté wu benn yoon ci calendrier ci transition bu ñu sukkandikoo ci ko yor porte-parole gouvernement bi Lionel Bilgo nga xam ne daal dinay def annonce bi ni ki démb ci altine ji yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril bi ñu nekk nekk ba tey dañuy wéy ni xibaaru biti réew yi ak réewum Madagascar bi nga xamante ne du yàgg dara ñu daal di bokk ci list rouge yi nga xamante ne pays yi gën a pays yi ñuy ger Madagascar ci bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué bu bàyyeekoo ci comité pour la sauvegarde de l'intégralité CSI di ab kuréel goo xamante ne dépendre luñ ci kenn nga xam ne dafay xeex lépp lu jëm ci wàllu ger foofee ci réewum Madagascar daal dinañuy tiire seen alarme bu fekkante ne feeg weeru septembre bii dara changé wul pays ba mën naa dugg ci guuta ndax li ñu fa nemmeeku mooy ger gu métti kuréel gii di organisation intergouvernementale nga xam ne dafay xeex lépp lu jëm ci wàllu blanchiment d'argent ak financé ñi nga xamante ne ñooy ay terrorisme waral sax ñu daal di alerter ñi nga xamante ne ñooy malgache yi nga xam ne mën naa indi sooxe ci seen dundin ba tey xibaaru bi ci réew yi dañ koy jeexalee ak li nga xamante violence faite aux femmes foofee ci réewum Cameroun bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne mooy artiste bi di Ange Keifa nga xam ne ay atam toll na ci ñaar fukki ñaar fukk ak juróom moom sax daal di nay livré benn benn coup daal di koy jaarale ci musée yi ci galerie rawatina sax ci réseaux sociaux yi artiste camerounaise bi nga xam ne bokk na ci lauréat programme tram nga xam ne moom sax xeexam yëpp dafa bëgg artiste francophone yëpp daal jot daal bénéficier yóbbu ci résidence ci cité internationale des arts bu nekk foofee ca Paris mbokk yi li moo fi gën a fës ci xibaaru bi ci réew yi di leen jox dig daje ba beneen yoon. cant ak ngërëm ñeel na ko moom Cheikh Tidiane Dansokho kon mbokk yi dañuy wéyandi ak xibaaru tàggat yaram yi. mi ngi noonu xibaaru tàggat yaram yi am mbégte bu baax a baax di dalal ki nga xam ne moom mooy coach Abdoulaye Senghor Abdoulaye maa ngi lay noo def mbaa yaa ngi si koor gi tey dafa mel ni jàpp na la de. Euh, Abdoulaye tey xibaaru tàggat yaram yi fan ak fan nga ñuy yóbbu. Ah, mi ngi doon xibaaru euh, tàggat yaram des mën na koy euh, door rek tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations ci wàllu jigéen ñi nag ay fan rek daal di desandi ngir ñu sóobandi ci boobule tirage au sort nag nga xamante ni compétition bi mu nga nar a xewee ca diwaanu Maroc nag confédération africaine bu football nag daal di publier procédure bi nga xamante ni nag moom la ñaar a adopté ngir mën a dispatché ñoo ci eh, daal di eh, qualifié nag ci fàttali boobu le tirage au sort nag nañ ko amal ajuma yi mook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril eh, fale nag ca diwaanu Maroc ci complexe Mohamed VI nag fale ca diwaanu Rabat di fàttali ba tey ne équipe yu qualifié nag bokk na ci Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Maroc mi nga xamante ni moom mooy daloo compétition bi nu mel Afrique du Sud Togo euh, Tunisie Ouganda euh, ba ci euh, Zambie ñu weel xabaaru tàggat yaram di waxandi football ba tey waaye bi leen yoon bi leen yoon nag ci góor ñi ak équipe nationale bu diwaanu Sénégal nag nga xamante gannaaw tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations édition bay nar a xewee fële ca diwaanu Côte d'Ivoire nag moom fédération sénégalaise bu football gannaaw match bi nga xamante ne nar na dox diggante Sénégal ak Bénin ñu daal di koy jàpp ñetti fan ci weeru juin jongante Rwanda ñu daal di koy jàpp nag juróom-ñaari fan ci weeru juin waaye bu weesoo loolu itam mu am yeneen ñaari date yi nga xamante ni booy moytandiwul rek Sénégal dina ci amal ay match amical bokk na ci fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak ñett ci weeru juin bu ñu dégmal loole nag ki nga xamante ni moom mooy président fédération sénégalaise bu football nag di maître Augustin Senghor moom moo ko daal di xamle sax ni moom ak kii di directeur technique national Mayacine Mar ak coach Aliou Cissé ñu ngi daal di xool ana yan anam la ñuy euh, daal di amale nag ay match amicaux laata sax euh, euh, seen i vacances loolee nag ngir jëmmal mondial ba nga xamante ni nag ma nga nar a xewee nag fële ca diwaanu Qatar dañuy daal di jeexale xibaaru tàggat yaram nag fële ca daan diwaanu Tugal ak demi-finale Ligue des champions bi nga xamante ni ni ki tey lañ koy daal di dóor nag Manchester City dana dalo Real de Madrid nag ci beneen wàll gi nag ñoo jàpp ni sax yi la demi-finale nag dana daal di confronter ay équipe anglaise ak équipe espagnole nag Villarreal ak Real de Madrid ca diwaanu ak Liverpool ak Manchester City ca Angleterre loolee nag di ab firnde bi nga xamante ne nag dañ koy daal di teg jëmale ko ci eh, ñaari eh, championnat yooyu nga xamante ne nag eh, bile yoon dana doon fukk juróom ak ñetteelu yoon nag ñu daal di bokkandi nag ci phase final wala dernier carré nag ci compétition bi ñu mel nag noonee sax booy moytuwul danañ amal ñaari club club anglais ak club espagnol bu nar final waaye nag laata loolu faw rek ñu daal di xamandi ci ñaari jongante yi ñoo ci daal di génne nag Manchester City ak Real de Madrid ni ki tey bu 19h jotee Liverpool bu Sadio Mané ak Villarreal ni ki suba ci àllarba gi mu ngokk li ni mel moom mooy daal di këlmal sax xabaaru tàggat yaram canta ngërëm ñeel na la. canta ngërëm ñeel na ko moom kët sa Abdoulaye Senghor si xibaaru tàggat yaram yooyu lee yéenekaay yi xëyee te bu nes kii see lay doon. xibaar yi ci suñuy kër FM. donc li xëti yéene kaay xëyete damay amaat mbégte rek bu baax a baax di dalal ki nga xam ne moom mooy soxna Ndeye Marie Daba ci plateau bi Ndeye Marie maa ngi lay nuyu maa ngi lay bu baax a ah, ba yanj na lool boo bëggee dégg dëgg bu ñuy xef may écourlé ci biir plateau bi ndax sonn gi ma sonn <laughs> mbaadu soxna eh, national bi nga xam ne xëy na ci facture bu euh, cher bi nga xam ne ñu ngi koy daal di euh, nemmeeku ci wàllum wàccaayu korité gi la facture de la korité sano sale mel ni saf na sàpp rek ci ñi nga xam ni ñooy borom kër yi ndax lu ñu laal lekk ñu ne leen du fi ndax yokk gu metti waaye tam li nga xam ni moo tukkee ci retombées yi foofule ci réhabilitation bu marché syndicat bu Pikine ak la cay tukkee du ëpp ci fukki doomi aadama ñàkk seen bakkan ci ay accident de la route diggante Fatick ak Kaolack ci euh, yoo xam ne rek ay fan yu ne waaye itam ci wàllum politique la Soleil nationale daal dina ci xëy ak parti yi nga xam ne ñaari yoon ci at mi lañ daal di rek amal ay élection ñeel locale yi ñu génn waaye itam législative yi ñu euh, dëgmal ak euh, laaj bi nga xam ni mi ngi ci euh, waa soleil national financement yi nag naka lay demee ndax booy xool caution yi ci ñaari élection yooyu yëpp bu ci nekk quinze millions lay daal di doon Walf Quotidien xëy ci wàllum transhumance ak arme secrète bi nga xam ni moom la njiitu réew mi yor ba tax rek ñeen ci kujjeg politique gi daal di wàlliyaan si ci lii di mouvance présidentielle waaye itam moom Farba Ngom Farba Senghor ngeen baal ma daal di nay wax ci ab entretien boo xam ne rek amaloon na ko ak yenn ci suñuy naataango euh, taskatu xibaar moom nag li mu xamle mooy ni euh, mécontentement bi nga xam ni moom la Karim may Wade daal di am ci diggante baayam bi di Abdoulaye Wade ak président euh, Sall waaye itam jàpp na ni lii di opposition bi bu ñu deful benn say bu ñu moytuwul rek lii di yéen législative daañu ci lajji ba nërmeelu ñu wax ba tey ak le quotidien moom itam xëy ci wàllum politique ak kii di di ni eh, meeru dakaar ba woon moom nag eh, dafa nekk ci tànki bàyyi lii di làng ko politique gi waaye itam eh, di xam ne ni ci les législatives yi ñu dëkkmal du ci bokk benn yoon ndax amul list bu muy présenté waa benn Bokk Yaakaar ci diwaanu dakaar ñoom jot nañoo récolte ci wàllum parrainage lu toll ci cent mille pare yoo xam ni moom la ñu daal di am mu mel ni rek daal di nañu réussir seen pari foofu la ca diwaanu Dakar ci wàllum scandale bi nga xam ni moo xew ci ñeen lii di neuvième forum de l'eau mi ñu doon amal ci diwaanu jam ñaajoo ak kër yi nga xam ni dañuy luye ay oto lu ci mel ni Africa Tour Sénégal Tour ak lii di Ers ñoom itam ci xayma euh, cinq cent millions yoo xam ni lii di waa DCMP dañu ko daal di rejeté mais ñii di ARMP daal di nañuy approuvé lu ni mel la source a ba tey ci ñaari nouvelle yi nga xam ni rek neexu la dégg. ci travailleurs yi yëngu foofu le ci diwaanu euh, poste ak euh, li nga xam ni mooy seenu salaire ba ci sax seen euh, payoor ak lii di scolarité habituellement yi nga xam ni moom lañ accordé yii di travailleurs yooyu yëpp dafa mel ni direction ba da ko salfaañe ba tax ci jamono yi ñu génn rek daat nañ ñi wane seenu nakar ci lu ni mel gannaaw loolu ñii di enseignants yi ak ñi yëngu ci wàllum secteur sanitaire bi ñoom itam daat nañuy dagg yenn ci seeni salaire ñi nga xam ni rek jàpp nañ ñi nekkuñu en règle muy ab répétition boo xam ni daal dinay duggaat ci secteur euh, sanitaire ñu wax ak euh, l'observateur Yewwi Askan Wi euh, ñoom ci ab nëng sarax boo xam ne rek moom ci seeni ambition ci la daal di lalu ci ñaari législative yi génn wala bokk ci ñaari élection yi nga xam ne moom la ñu génn ñenn ñi sax jàpp ni bu ñu deful lii di bloc rek bu ñu moytuwul dinañu rupture Euh, ci seen parti yooyu le bés bi le jour xëy ci wàllum santé ba tey ak euh, cas yi nga xam ni moom la ñu nemmeeku ci wàllum paludisme bi nga xam ni mu ngi rey euh, ci askan wi lu toll ci lu ëpp junni doomi aadama at bu yàlla sàkk rek la ñuy nemmeeku ñenn ñi jàpp ni sax moo gën a garaaw lii di Covid 19 yii région nag nga xam ne bokk na ci yi mu gën a laal muy duggu Kédougou Tamba Ziguinchor ak lii di diwaanu Kaolack critique yenekaay moom itam itam xëy ci waa ànd gësam wàllum euh, santé ba tey ak protocole bi nga xam ni euh, jot nañu ko accordeel diggante kii di euh, jëwriñ du ñu dénk wàllum wér-gu-yaram gannaaw ba nga xam ni rek ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2021 bi ñu génn lañ doon sàkk yooyu le accord ñu daal di leen koy amal ci 17 points yoo xam ni rek jot nañ leen ko nangul ñu wax ak ba tey santé bi ak tribune yéenekaay ci 17 points yi nga xam ni euh, moom ji euh, jëwriñ juñ dénk wàllum wér-gu-yaram jot na ko rek euh, suul ñu fàtte ko ci ginnaaw ngir rek lii di affaire a soxna ak fukki poñ yeeg juróom-ñaar yi nga xam ni ci yooyu la accord moom la daal di euh, tukkee ñu wax ak li nga xam ni mooy L'As Quotidien euh, le plan de modernisation de Dakar Plateau euh, acté daal nañu koy rek taxawal ngir soppi xar kanam bu lii di Dakar Plateau nekk ca xolub Ndakaaru 24 heures yéen kaay kuréel gi ñoo lànk daal nañu ñoom itam. approuvé lii di sanction yi nga xam ni moom la ñu yëkkati ñeel jafe-jafe yi Sénégalais yi di dundu Euh, ci euh, lii di euh, Sénégal rawatina législative yi nga xam ni moom la ñu daal di dëgmal ñu wax ak le mandat waa Benno Bokk Yaakaar ca geneen wet ga lii di coalition Yewwi Askan Wi au bord l'implosion bu ñu moytu rek tas-tasar la yooyu li kuréel nara amal ñeel li nga xam ni mooy législative yi ndax lañu ñu nemmeeku mooy ni bal bi dafa daal di tourner juboo ga amoon ca Yewwi Askan Wi moom moo am léegi ci lii di Benno Bokk Yaakaar ñu wax ak lii quotidien moom itam ci li nga xam ni rek mooy les trans les tensions euh, accalmie euh, ci wàllum wér yaram ak accord yi nga xam ni moo dox ci diggante ñi di waa syndicat yi di ànd gësëm ñoom itam daal nañ leen koy accordel waaye am na yeneen yoo xam ni ñu ngi koy réclamer préfet daal nay autoriser ab marche ñeel lii di euh, jàppale kii di Cheikh Omar Diagne bi nga xam ne jamono jii mi ngi ci euh, kaso Rebeuss waaye dafa daal di changé lii di itinéraire maanaam yoon bañ bëggoon a jël moom préfet da ko dàq ngir rek ñeneen ñi jël euh, beneen yoon sante ba tey wàllum paludisme ak li muy faat ci réewum Sénégal lu toll ci diggante weer wi ñu génn rek daal nañuy am lu ëpp téeméeri doomu aadama yoo xam ne jàpp nañ ni paludisme moo leen daal di faat teral quotidien ci wàllu soppi xar kanam bu Dakar Plateau ba tey maa nga ca eh, ak eh, budget bi nga xam ni daat nañu koy dégager ngir rek eh, mën a gën a taaral boobule eh, diwaan ci teewaayu ki nga xam ni mooy jëwriñ juñ dénk wàllum collectivité eh, territoriale ak eh, li nu mel évidence yéenekaay moom itam di laaj ab maanaam ab laaj samp ci évidence yéenekaay ana lan moo tax rek moom njiitu réew mi gën a am lii di regain de popularité maanaam li nga xam ne mooy code de popularité gën a yokk ndeyaal yi lu doy waar moo xew ca diwaanu baax ñi ak benn gone goo xam ni ay atam ci juróom-ñett rek lay toll lañ daal di faat ñu ngi gannaaw nag enquête yi jot a génn jàpp nañ ni euh, lii di euh, viol la euh, daal di ñu ciy teg rek app faat bakkan waaye geneen wàll ga gone ga ñu bëggoon a faat ca diwaanu Thiès moom nag daal nay mucc ci li nga xam ne rek mooy a ko doon bëgg a def maanaam du ko bëggoon a tëral après ndi waaye ay gaañu gaañu rek la ci daal di jëlee mu ngi noonu ndey yàlli lii la ëpp yëglekaay xëyoon fësal canta ngërëm ñeel na la. mi ngi noonu canta canta ngërëm ñeel na la yooyu itam soxna Ndeye Marie Dabo ci yooyu la xetu yéene kaay kon mbokk yi mu mel ni boobulee élément sax moo këmmal suñu jotaayu xibaaru diggi bëccëg yi canta ngërëm ñeel na leen yéen itam yéen ñi féete woon ci teewlu gi kon mbokk yi lu nuyoo tàggoo wante lu jiwoo joxul jógu fa tàggatoo jot ci xibaar Ndeye Yali Fall Cissé nekkoon ci waxukaay gi jaajëfal bu baax a baax Aïda Ka moom mi féete woon ci wàllu xarale gi ba dégg-déggin gi mën a leer ko ñu ñaanal leen jàmm te di ko sàkku si yéen yàlla buur bi moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na ko wasaare ci àdduna wërngal këpp jërë ngeen ci suñu kër FM sur www.suñuker.com